asalaamaaleykum mbokki téléspectateur euh, Equivox TV. Equivox TV. Equivox TV donc man la docteur Oumar Ba je euh, man may euh, coordonnateur programme national de lutte contre le tabac ministère de la santé de l'action sociale. Mhm. également maa ngi fi comme médecin praticien euh, hôpital général Grand bu Grand Yoff ex Idriss comme léegi Idrissa docteur si lutte bi nga xamante ni yaa ngi koy def di lutte contre le tabac mu doon décret boo xamante ni au niveau international ñoo ngi ko génnee le 27 avril 2005 Sénégal bokku ci yan jéego la Sénégal def ci loolu. ratification bi Sénégal bu mu ko defee dañu voté loi anti tabac bi nga xam ne mu ngi daté de 28 mars 2014 c'est la loi 2014 14 du 28 mars 2014. Mm Euh, bu ñu ko voté après monsieur le président de la république dans les quinze jours dafa jël euh, dafa ko publier dans des journaux officiels donc nga xam ne loi bi na. Mhm. et après jël décret d' application deux mille seize. Mhm. te depuis boobu commencé ñuy def application loi bi. Mhm. am na yu bari yi nga xam ne Sénégal jot na def. ci xeexum pon. Euh, interdiction de publicité mooy c' est à dire li nga lépp li nga xam ne dafay. nuroo ak euh, pro promotion cigarette. Mhm. pon loi bi daf ko tere. Mhm. dëkk bi gisutu leen fenn ay panneau publicitaire cigarette loolu yàq na depuis bu ñu ko botee léegi amatul mais panneau bi fi nekkoon yëpp ay cigarette moo ci nekkoon. Mhm. Euh, publicité télé ak rajo yëpp pour cigarette dañ ko tere. loolu yëpp amatul. Euh, cigarette bi dafa tere ñuy jaay ay xale nga xam ne mineur ñu koy jaayloo wala ñu koy jaay pon. loolu aussi euh, def nañ ci ay jéego yu am solo. Mm-hmm. Euh, def nañ aussi ay formation pour journalistes yi nga xam ne waa média. Mm-hmm. ak gérant gérant de lieux yi au restaurateurs yi hôteliers yi pour ñu xam ne cigarette dañ ko tere euh, dañuy tere utilisation cigarette dañuy teree tux ci lieu public. Mm-hmm. parce que loolu pour aar ñi nga xam ne duñu tux. dañuy interdire li fi cigarette ci lieu public. lu ci des aussi euh, am na beneen euh, jéego bu am solo nga xam ne def nañ ko mooy emballage yi mooy paquet cigarette yi. Mhm. dañ ci def ay photo léegi pour wane nit ñi kuy jëfandikoo cigarette lii mun na la dal. Mhm. donc su ngeen xoolee paquet yi ñuy jaay Sénégal dafa am ay photo loolu amul woon. Mhm. ay message moo ci ak am na aussi ay message nga xam ne am na benn numéro vert bu fekkee da nga bëgg am information ci pour arrêter de fume wala information ci feebar cigarette. mun nga woote ci numéro ministère de la santé numéro gratuit bi nga xam ne dinañ la tontu. Mhm. donc am na am na ay ay am na ay jéego yu bëri. Euh, mhm. jot nañ ci def mais application de la loi du nekkul benn affaire bi nga xam ne dañ koy def tey mu jeex déet dañ koy c'est un programme continue mhm. euh, application bi de day wéy di continuer parce que il faut ñu ñu continuer di ko appliquer di former nit ñi di. di yi ñi aussi def aussi ay enquêtes. mais aussi en tant que coordonnateur loolu yëpp ngeen di liggéey di koy def est-ce que génnee benn loi pour criminaliser ko est-ce que loolu gën tey yomb lépp. waaw xam nga déjà euh, il faut ñu comprendre benn am na ay réew yi nga xam ne dañuy opté ñu ne cigarette kenn du ko jaay ci seen dëkk. ça sa mhm. c'est ça c'est une volonté politique. Mhm. mais ñeneen ñi. Euh, dañuy jël loi parce que loi bi am na fu mu jógee. Mhm. parce que cigarette drogue la. OMS moo ko moo ko wax. Mhm. Euh, parce que lu muy def ci doomu aadama beneen drogue aussi moom lay def euh, comme dafa nekk drogue bi nga xam ne drogue bu legal loolu moo waral ñu ñu wax lu ñu am na lu ñuy wax convention cadre de lutte contre le tabac c'est-à-dire c'est la réponse mondiale de l'OMS contre le tabac. loolu mooy convention cadre bi nga doon wax ratification bi nga doon wax sànq 2005 mm-hmm. foofu la jógee mm-hmm. OMS nee na comme que cigarette bàyyiwul kenn lii la ñu war def nii lañ ko war defee euh, ce qui fait que euh, les pays riposte commune lañuy def c'est-à-dire ku nekk da ngay def li nga xam ne dañuy seetu ñu ne buñ ko defee dañu lay xeex dañoo ràññee si réew mi nga xamante ni moom mooy Sénégal au niveau de l'Afrique mu doon benn exemplaire ci réew yi nga xamante ni. oui Sénégal Sénégal c'est un exemple. Hmm. effectivement loolu ban taxawaay la si sa kuréel am. waaw non Sénégal c'est parce que mooy mooy li mën a wax. ñun hmm. lu ñuy def ñëpp ñu ci teg bët. Hmm. c'est-à-dire que dañu am na li nga xam ne def nañ ko. Euh, tey euh, mun naa wax ni fii ci en Afrique amul benn pays bi nga xam ne euh, def na lu ëpp Sénégal lu mu def ci jéego ci xeexum poon. Euh, il y a deux ans le Sénégal am na benn prix bi nga xam ne conférence mondiale su tabac et santé bi amoon euh, Cape Town euh, trois mille trois mille participants Sénégal dafa amoon prix international Bloomberg ñun ñu am prix boobu donc loolu dafa firnde rek autorité Sénégal ñu ngi taxaw mhm. pour xeex cigarette pour mu mu bañ ko nit saa su nekk si xeex bi gis neen cigarette bi moo ngi gën a yokk prix te nit ñi ñoo ngi koy gën di jënd tamit fii si réew mi di Sénégal est-ce que yéen seen cible ñi ngeen war a sensibiliser en terme de communication ñu koy jëfandikoo la war a ñu ko jëfandikoo kese. waaw xam nga euh, euh, sensibilisation bi xam nga ñi di defar pon xale yi moom la ñu gën a ciblé. ñoo xamante ni laalaguñ koo jëfandikoo guñ ko nga xam ne parce que xale nga xam ne ñu ngi nekk euh, amu sax amuñu 15 ans am na déjà ay xale nga xam ne amuñu 15 ans commencé ñi daal cigarette. parce que mhm. ñi nga xam ne dañuy jaaykatu poone mi amatuñu affaire ak ñoom parce que ñoom ils sont ay dépendant lañu. lu ñu ut kay mooy ñeneen ñi nga xam ne mun na leen remplacer suba parce que kuy tuux cigarette une personne sur deux cigarette moo lay rey. lu ñu bugg mooy remplacer ñi nga xam ne ñooñu dañuy dee ndax ndax cigarette. moo tax dañuy recruter ay xale di leen defal ay fausse promotion di leen defal ay fausse image di leen defal yu mel noonu loolu moo waral loi bi jéem a protéger xale yi. Euh, donc. si si xayma cigarette ñaata nit lay fa faagaagal par par jour wala par mois wala par at. no li ma la mun wax at bu nekk. Mhm. juróomi ñetti doomu juróomi ñetti million doomu aadama ñu ngi dee ci af ci ci àddina bi ndax cigarette. juróom ñetti million doomu juróom ñetti millions yi juróom million doomu aadama cigarette dina la rey at bu nekk te juróom ñetti yooyu na nga xam ne million bi lu ci manqué tuuti ñoo mosuñu laal cigarette seen seen sol sol toor. mooy jële ñu nekkoon ak ñeneen ñi nga xam ne dañu doon tux mooy tabagisme secondaire wala lu ñu doon wax tabagisme passif mosuma tux docteur looy wax dafa am solo trop juróom-ñetti million ñooy dee si àdduna bi chaque at tey nga jàkkaar nga ñu nekk dans un monde connecté nit ñëpp nekk dans l' internet mhm. mën nga toog si taw wax benn message mu daj àdduna bi yëpp ñëpp déglu ko mhm. di leen la bàyyi ci olof ak ci français nga wax sa message de sensibilisation booy wax askanu Sénégal Afrique ak ñu nekk si àdduna bi yëpp dan nga leen di wax ci li contre le tabac. mais leen di wax c'est-à-dire que il faut ñu xam ne cigarette. Mm-hmm. Euh, dafa nekk euh, euh, drogue bi nga xam ne. Mm-hmm. lu muy lu muy lu muy lu muy lu mu ku koy jëfandiku. Mm-hmm. comme niñ ko ku ko bind ku ko defar ku ko tabax wala ku ko fabriqué. soo ko jëfandiku noonu ay ba rek nga ci am. benn. Euh, ña xam ne aussi cigarette bàyyiwul kenn boo bàyyiwul ki nga xam ne rek dafay jëfandikoo mais ki su fekkee am na ku jëfandikoo cigarette mhm. soo sowet yow daf lay lor donc cigarette mu ngi lor kuy tux mu ngi lor ki nga xam ne tuxul mais dañ ko exposé mhm. mais na nañu xam ne aussi cigarette économie économiquement aussi dafay appauvrir nit ñi mhm. c'est-à-dire que jël xaalis bi nga waroon jënd lekk nga jël ko di ko jaay cigarette loolu dafa am def dafay am lu mooy deuxième message troisième message bi mooy mhm. euh, dañuy nekk ci mbirumu épidémie Covid mhm. ñu ngi wax ay transmission communautaire foofu laay jaaxalee suma kaddu mhm. transmission communautaire cigarette dafa nekk moyen de contamination da ngay jël poon dugal ko ci si gémmiñ nga jël feebar parce que yaa ngi ko jël feneen kooku am na micro bi nga jël ko benn nga jël ko tux jox sa morom kooku jël ko yóbbu ci keneen loolu mooy transmission communautaire chicha bi ci la bokk tey am na ay xale yi nga xam ne quoique loi bi interdit chicha loi Sénégal dafa tere chicha mais xale yi ñu ngi koy ñu ngi koy ay mag sax ñu ngi koy utiliser nga tux jox sa morom jël feebar bi jël keneen jël keneen jël keneen jël donc nañu xam ne cigarette nekkul affaire bi nga xam ne dañ ko bàyyi seulement ak ministère la santé ku nekk na nga xam ne loi bi ñu voté mooy protection de générations futures amuñu xam lu dul suñu suñu doom yi ak suñu naw yi donc ku nekk da nga war xam ne lii am nga ci sa am nga responsabilité pour xeex cigarette am nga ci responsabilité pour sensibiliser nit ñi ngay commencer nag sa biir kër sa service ak ñi nga nekkal ñun ñoo ko ñoo ko bokk parce que wax naa la sànq cigarette bàyyiwul kenn kuy tux dina la lot ku ñu tuxloo aussi dina la lor. Mhm. donc loolu mooy message bi nga xam ne. Euh, le message en français. Le message en français, c'est qu'il faut qu'on se comprenne. La cigarette, euh, ça tue l'utilisateur, mais ça tue aussi celui qui est exposé. Et que c'est euh, c'est aussi une, sou une source d'approvisionnement économique. Parce que tu prends l'argent, au lieu d'aller acheter à manger, tu achètes la cigarette. Donc tu t'appauvris. Troisième chose, nous sommes dans une épidémie de Covid. La cigarette, c'est connu, c'est un mode de contamination du Covid. Parce que les gens, ils achètent, ils prennent, ils se contaminent en mettant le microbe dans la bouche. Mais mieux, les gens qui fument, ils se partagent les mégots, ils se partagent la chicha entre Donc, ils se contaminent. Et nous sommes dans une ère de contamination communautaire. Mhm. Donc, la cigarette fait partie des, des, des, modes de contamination de, de, du Covid. L'autre chose que les gens doivent savoir, en tant que je suis pneumologue, donc en tant que, que, que, que pneumologue, ce que je dire aussi, que les gens qui font des complications de Covid ou qui décèdent de Covid, c'est souvent des gens qui fument. Mhm. Par rapport à ce qui, donc, euh, pour en résumer, il faut que, que les gens fassent la prévention, la sensibilisation, d'abord mmh. chez eux, dans le lieu de travail, mais ce n'est pas seulement une affaire du ministère de la Santé, c'est une parce que tout le monde est exposé. Le fumeur comme le, le fumeur, mmh. le fumeur comme le non-fumeur. Donc il faut que tout le temps, chacun, notamment la presse, que les gens continuent à sensibiliser mm pour, aider à lutter efficacement contre le tabac et le ministère de la Santé et tous les acteurs aussi. Euh, votre mot sur Equivox TV, comment noo gisee boîte bi. bon non mais c'est c'est une très bonne ini c'est une très initiative maa ngi gërëm euh, mm-hmm. équipe bi bu euh, def effort pour ñëw justement jël suma message di ko partager ak euh, ak ak communauté bi. Mm-hmm. parce que ñun xam am nañu xam-xam am nañu aussi information mais information bu musul nu jàll. su fekkee amul médium bi donc mhm. li ngeen di def yéen a ngi def seen liggéey maa ngi leen di gërëm di leen féliciter ak seen équipe di leen encourager mhm. parce que c'est ça informer c'est ça aussi éduquer mhm. aller prendre la bon information jox ko ñi nga xam ne mën na ko jëfandiku mooy mooy askan wi merci beaucoup docteur leen di gërëm ci loolu merci beaucoup